mu tekki laa yonante bi ne ko wax ma nag luy al ihsaan rafetal mu ne ko rafetal day mooy ngay jaamu yàlla tey fonk jaamu ga di ko rafetal ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom ne ko jàkk loolu mooy daraja bi gën a kawe bu fekkee ne nag àggoo foofu kon nga di ko jaamu te jàpp ne yow bu fekkee gisoo ko it moom mi ngi lay gis ci misaal rekk ci àdduna si kilifa goo xam ne goo fonk fonk la la mooy sant nga di ko def bu la wóoree ni mi ngi nga jàkkaarloog moom da ca jéem lépp loo mën ci luy tax xolam sedd luy tax mu gërëm la da nga ca moytu kem sa kàttan lépp loo xam ne bëggoonu sikkal ko ca bu fekkoon ne it jëmm ji nga xam ne moom nga fonk noonu nekkul di teew ngay jàkkaarloog moom waaye jàpp nga ne fa mu toog moom mu nga lay séen yow yaa ko séenut waaye moom fa mu nekk mu nga lay séen ba tey danga ko bàyyi xel lool ba loo mën rek ci luy rafetal la ngay def danga ko jéem loo defe dana ko sikkal da ko ca moytu kon dëgg-dëgg al ihsaan mooy di jaamu yàlla te rafetal jaamu ga ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom daraja boobu moo gën a kawe daraja ba ca des nag mooy nga jàpp ne moom booy jàkkaarloo wut ak moom moom mi ngi lay gis di jàkkaarloog yow moom la sëñ bi tudde ak tasawuf ci téeréem yi bu sëñ bi jàngale diine da koy def ñetti xaaj ñii te njëkkee al iman ndegam gëm moom mooy cosaan mooy jiitu leneen door caa topp moom sëñ bi day jiital al iman gëm teg ca al islam bi santaan yàlla ci kaw suuf mujje al ihsaan muy rafetal ak sellal googule téere yi mi taalif ni ki tasawudu ziwaar tasawudu shubaan jazbatu siraar ak pegg yi mu daan pegg ci suuf ak dénkaan yi mu daan dénkaan yépp rek loolu lay feese kii laaj jàll na yonante bi waaw wax ma nag bis penc kañ lay ñëw yonante bi ne ko man mi ngay laaj kañ la bis di ñëw gënu ma la koo xam yow ma koy laaj sunu borom bi nga xam mo dogal ne bi ci penc dana ñew mom rek mo xam waxtu mu ñew tax da koy jublo laq dañ kenn xam ko innas akaadu ufiha li kullu nafsin bima tasaa mu ne ko kon nak degam mo def tax waxtu mu ñew deug deug wax ma ay mandarga bi nga xamne suñ ko gisee xam ne kon jege si na ma ne ko bi ci njëkk mooy jaam bu jigéen jur ab sangam loolu nag am na ay wax yi wax yi ci ñu koy firi ci saahir si moom mooy jaam bu jigéen bi doom ja jur di ab sangam loolu nag daana amee ci kaw ci moom jaam bu jigéen bi joteeg moom ba am ca doom doomam joojee tey doon gor ne moom mi nga xam ne mooy baay bi te nag lu baay bi moom day mel ne doom jaa ko moom day mel ne kon jéggal boobee ndegam am na doom ak ab sangam ni ab sangam doone ab sangam rek noonu la doomam joojee doone ab sangam am ñu ne kon ci mu jóg àdduna jaam yi dañuy bari lool ñay joteeg seeni jaam ba am ci ay doom bari lool loolu nag mel na mas naa bari lool te ba jaam xewee waaye jamono yi moom daa mel ne wàllu njaam daal mburu lu yi yàlla nag mën na koo delloo yenn jamono am ñu ko firee ne mooy ñu àgg ci njaboot gi muy doom yi ñàkk teg fenn seen yaay nga xam ne ni ab sang bi defub jaam rek noonu la doom yi demee dem ba def ko seeni yaay duñu leen teg fenn duñu leen jàppee nen lu may rek ni nga xam ne moom la ab sang di jàppe ab jaamam am ñu ko firee mooy ñu dem a dem ba nga xamee ne ñooñu daan yilif ñuy féete ca gannaaw ñooy wëlbatiku di yilife maanaam barab boo dem ña fa yore mbir ya di defa ko dindi ñu topp ci seen gannaaw boo delloo rekk ci gannaaw ci démb ci gannaaw lañu daan féete tey nag ñu yilife nekk ca kanam li kanam ngànk mbir yi ci def nek ci seen gannaaw loolu benn mandargam bis penc la ñaaral bi mu ne ko ñu dema dem ba alal yi àdduna bare bari ba ñun xamoon ñu topp ci jurga daaw ñu sax sol ay dàll daaw ñu sol ay yére yu baax dama dem ba bari le lool lool ba di tabax rek di wéy di teg ay étage rek muy dem ci kaw nga xam ne boo xoolee ki tabax tabax bee daal bu yàggul rek ay baayam ak i maamam sàmm jur gi ci àll ba di def daanaka yaramu neen rek ak a doxe tànki neen lañu xamoon moom nag àdduna soppiku xeeti wutukaay yi bari mu daal di am pexe dal di bari lol lol lol day tabax rek ay étage étage dirangalé yi kon bokk na ci mandarga bis penc alal aduna bari bari bo xamné ñu ñu xamé ton sax alal dañ koy bari lé lol lol rawante nak ñu ñooñu ko lon nak jek nga xamné amon nañ ay capital mané ko yoy bokk na ci mandarga yi bis penc manam mandarga wone ne bis penc jage ci na ki don laaj nak fofu la daldi deme omar ne ma tok ab dir yonent bi ci bopam mo jek jek ne ma omar xam nga ki don laaja mané ko yalla aku yonentem ño xam deug deug mané ma koku jibril la dafa ñewoon di jangal seen diine te jaaré ko ci laaj ma diko tontu dal di xamne kon diine mom mënta génn yett al iman al islam al ihsan gëm te santane yalla ci ko suuf te lepp lepp yalla kese rek tax aji su ñettel han abi abdurahman abdullah ibni omar ibn alxataab radiallahu anhuma سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دقونا ينتبه الله بيوخنا بني طبق الإسلام والإسلام على خمسين تجروم شهادة أن شارنا نكري برمودي لا إله أم البنبور إلا الله دري الله وأن محمدا أبنك محمد رسول الله دولي الله وإقام الصلاة أكتح والجل وإيتاء الزكاة joxe asaka wa xajjul bayti ak aj kaaba ga wa sawmi ramadaana ak woor ramadaan rawaahul buxaari wa muslimun hadis bi ba tey buxaari ak muslim dañ caa tase abdullah omar ku siiwa siiw la nee moom ci bopp moo dégg yonante bi muy wax ne lislaam yalla da ko tabax ci kaw juroomi kenu kon ponki l'islam ba nga ne kenu l'islam juroom la seere ci lamiñ ne la ilaha illallah muhammad rasulullah seere ne yalla rek rek kay bur muhammad moy, ndaw li mu yónni mu wone aw yoonam loolu mooy benn kenub l'islam bi taxawal julli ca joxe asaka pepp ca aj màkka pepp ca weeru koor pepp ca ci net li day wute am net li buy jiital koor doo caatek aj am buy jiital aj ni bii def doo caatek weeru koor waaye li ëpp ci téere fiqi moom dañuy jàngale dañuy jiital julli teg asaka ndax li yaay ëpp lëkkale ci alquran julleen asaka ni koy aqimu salaata wa atu zaka teg ca nag weeru koor aj màkka loolu daal moo ëpp ci téere ci ni ñuy tegale kon tonki lislaam mi ngi noonu tudd ñaari baati seere yi muy benn ak taxawal julli juróom ak joxe asaka ak woor wooru koor ak aj màkk ci ko ko man aji si ñeenteel xan abi abdurahman abdullahi bni mas'ud radiallahu anhu qaala xaddasana nett li woon nanu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa te moom assaadiqu moo di aji dëggal ja al masduqu te jikko kuñ moy lepp lu wax rek jele fa yalla ne inna ahadakum naka kenn ci yeen yu ci mahu defna dole xalquhu bindam ba fi batni ummi ci biirub ndayam arbahina ñeen fukk yow man ci ay fan nut fatan muy toq yu nu mànni yu ثم di aw lumb misla dalika kem loolee suma yekkoonu topp dana nekk mudxatan di aw dog misla dalika kem loolee suma yusalu topp def na yebal ilayhi jëm ci moom almalaku malaaka fayan fu xotem wal fii ci moom arruha ruuga wa yu'maru te def ko digal bi arbaxi kalimaat ci ñeenti baat bi kat bi risqihi ci bind wërsëgam wa ajalihi akum àppam وعمله الجفن وشقي النخ أجي تخي دلا منام كل تخي أو سائر ولا أجي تخيلا فوالله وعدنا كي الله الذي نيخنين لا إله دبن بور غير فندر إمام إن أحدكم نكاكي النجيين لا يعمل تنجف بعمل أهل الجنة كي جفوا أجنة حتى ما يكون بدونك بينه ودقنتهم وبينها الدجنت أجنا إلا ذراه دار الجنة قصب فيشدق تيجيتو عليه تمام الكتاب تيريبا تيريب ناكته فيعمل تمي جفي بعمل أهل النار تجفي من سورا فيدخل حاتم كل دب وإن أحدكم نككي النشيين فيعمل دن جفي بعمل أهل النار تجفي من سورا حتى ما يكون بدنك بينه ودقنتهم وبينها اك ديغنتي نك موم الا دراهم دارل تون اب خصت فايش بقتي جيتو عليه تي موم الكتاب تيريبا فيعملو تمي جفه بعملي اهل الجنه جحوا اجنا فيدخل حاتم كوي دغ رواه البخاري ومسلم تاي اديس بوبو متفق عليه لا بخاري مسلم جاتاسه ku ñu dàkkintale abu abdurahman mu tudd abdullah ibn mas'ud ku siiw ci saxaaba yi moo ne yonante bi danoo mas a nettali nenu kenn ci yéen de ci biir yaayam la yàlla yi sottali mbirum yëpp yëpp laata muy feeñ ndax li yàlla njëkk dogal mooy toqinu man yu bayu ci góor gi dem ca biirub jigéen ja ndoxum góor gi ànd ak ndoxum jigéen ja yaari ndox yooyu ci la doomi aadama di tàmbalee te noona la loolay doone ndox rek du tolloog ñeen fukki fan gannaaw ñeen fukki fan yi matee yàlla soppi loolee muy lumbu deret du tolloog moom itam ñeen fukki fan su ñeen fukki fan yooyee matee yàlla soppi loolee aw dogu yàpp ba tey mu sax ca noonee doon dogu yàpp lu tolloog ñeen fukki fan boo boolee yetti ñeen fukk mu daldi doon yenti weer ndax yetti ñeen fukk la ci téeméer ak ñaar fukk mu doon yenti weer yàlla yebal malaaka ne ko boo demee nga ëf ca ak roo te boo ci ëfee roo ga bindal ñeenti baat yi mooy bindal ko wërsëgam nu muy toll ab atam nu muy tollu jëfam lu doon tekke nag bindi kii kuy texe la mbaa ku dul la xam ne kon jëmm ji ba mu nekkee ci biru yaayam la yàlla daal di rëdd na wër sa di toll na aw fanam di toll ak jëf ja muy jëf bu nekkee ci kaw suuf ak ndax kuy texe la am kuy ñàkk a texe la yonente bi daal cee teg ne looloo tax kenn ci yéen waat naa ci yàlla ne mën nekk di def lu baax xir ca lool bañ di ko yéem waaye bu demee dem ba nga xamee ne la ko dese ci ak dund bareetu tam bokk ci waa sawara faw dana jëf jëf ju ko yóbbu sawara ndax daa fekk loola lañu bindoon ca moom ba kenn ci yéen mën naa nekk di jëf jëfi waa sawara ba daanaka dara di seetu ko lu may rek lu néew néew ci ab dundam dem na ba ci mujj ga rek yàlla daal di koy baaxee mu jëf jëfi waa àjjana dem àjjana ndax fekk na loolu la yàlla naroon ca moom bindule woon ko malaakama nga xam ne kon daal kenn ku ne la yàlla bindoon rek moom lay paseel kuñ binduloon texe faw rek bu njëlbeenoo jëf jëfi ñàkk texe it jëfi texe lay mujjee ku bindal safaan ba it muy ak ñàkk texe lu mën di njëlbeenoo ci jëf ju baax it safaan ba rek lay mujje mooy jëf ju koy yóbbu ca safaan ba tax na saxaaba yi ne bi waaw ndegam moom lépp sotti na xanaa kon jërul ñuy sonn ci jéem lu baax ak moytu safaan ba mu ne ah jar na ko lool ndax kenn ku nekk la yàlla mar ci moom da ko koy yombalal da ngeen di farlu bu baax rek ci gëmuk ak topp te rafet njort ci ne bu yàlla nartoon ci yéen texe du leen may gëm ak rafetal ak topp tey moytu nag safaan ba dañu ne nit ñàkkum ñàkk xam lay xew ëllëg bu mu ko tee góorlu ci la wax ne bu ëllëgee mooy taxa a mucc tey moytu la wax ne bu ëllëgee mooy tee mucc ndax bu ko seetloo fii ci àdduna mu gàtt may gàtt su nawet bi da jub si tam nar a bay bu gëmee yàlla wóor na ko ne moom yàlla dogal na ca mbay ma lam cee dogal ba noppi dana baaxam du baax te du tee day dogu ci jéema bay rek te bàyyi yàlla lu ci def mu xam ne loolaay dogal ba nit daal mbiri àdduna moom su gëmee yàlla li muy dëgmal dana ko wóor ne yàlla noppi woon na ca dogal na ca ba noppi lam cay dogal te nag bu dee lu day taxaw temm ci sabab lu te xam ne yàllaay sottal bu dee da koy daw bu baax a baax te na ko ni yàlla dogal na ca lam ca dogal ba noppi loolu nag na ñu def mbirum diineem rek góorgóorlu ci jéema gëm rafetal te bàyyeeg yàlla alxadis alxamis xan ummi lmuminin ummi xabdillah xaaishata رضي الله hanha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث قصص في أمرنا سنبرمي هذا مي ما لو خمني min hu dir mu cey bok fa huwa kon moom raddun ak delloo la daay maxnaam mardoodun lu ñuy la wa muslimun wa fi riwayatin li muslimin man hamila ku hamalan jef lay sa alayhi jek de mi nek ci mom abruna sunu bir ba sunu digal fa huwa mom raddun ak la maanaam lu ñuy delloo la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko dàkkantale woon ummu abdullah abdullahi moomee mooy doomi zubayru ak asmaaw bi nga xamee ne moom soxna aysa ñoo bokk benn baay soxna aysa moo ne yonent bi dane woon suñu diine ji ku ci sos lu ci bokkut deesu ko nangu diine ji daal moom bàyyi ko ci yàlla jaar ci yonante bi yonante bi jot rek waaye ku ci sos li ci bokkut deesu ko nangu ak loo rafet rafet yéene ak loo rafet rafet pas-pas net li boobu bu ñëwee noonu buxaari ak muslim dañ caa tase am net muslim bu ne man xamila xamalan lay saxaabi amruna fa huwa radd waaye max naa mi benn la ñu dégg ci hadith bi ak julit moom mbiram yépp da koy delloo ci yàlla ak ci yonante bi muy mbiri diineem muy mbiri addunaam lépp rek da koy yeewu ci li yonante bi indi fexe ba bañ koo génn ci genn wet alxadiisu assaadisu an abi عبد an النعمان بن bashir radiallahu anhuma qaala sami'tu déggoon naa rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu innal xalaala naka aji dagan naka lu lew bayinun aji bir la lu leer la wa innal xaraama naka aji araam bayinun aji bir la wa baynahuma te nekk na seen diggante umuurun ay mbir mushtabihaatun yu di way lënt laa ya'lamuhunna dootu leen xam kasiran ñu bari mina naas ci nit ñi fa man ittaqaa ku wattandiku ashubuhaati lënt ya faqad istabraa kon setal na li diini si diineem wa irdihi akub deram wa man waqaxa ku tàbbi fi shubuhaati ci lënt ya waqaxa kon tàbbi na waqaxa kon suba tuul tàbbi fil xaraam yi ci araam karraa yi niki aji sàmm yarxa mbir moom day sàmm xawlal xima ci la wër kaaraangeel boor mbaa kaaraangeel keneen yooshiku dana xaw an yartaxa mu for fii ca moom ala yëgal wa inna li kulli naka ñeel na bépp buur ximan moo di yamu araamal alaa yëgal wa inna fil jasadi naka nekk na ci yaram wa mudxatan aw dog woo xam ne ida salahat ndéem yiw na salahat ak saluhat bu dee ci luxa rek salaha kon yiw al jasadu yaram wa kulluhu léppam wa ida na fasada kon yàqu al jasadu yaram wa kulluhu léppam alaa yëgal waxiya moom al qalbu modi xol ba rawahul bukhari wa muslimun batay hadith bobu bukhari ak muslim dañ ca tassé ku ñu dakantale abu abdullah mu tuddu an-nu'man nu bashir mo ne mo deugalante bi mu wax ne amna lu yalla daganal lewal ko mu leer nañ di lu ñu xama xam am lu aramal lu leer nañ di lu ñu xam xam waaye nag mu ne nag mu am ay mbir yoo xam ne dana lënt ci ñu bare bari ñu bari ci nit ñi duñ mën a xam ba xam lu araam la am lu dagan la ñu néew ñi ñoo koy xam waaye ñu ci nit ñi duñ mën a xam ba xam loolee lu araam la mbaa dagan la day rek day doon lu lënt ca ñoom mané nak ko xamné dund ko leunt da la ci gën moy rek bu sori ko bu ko sori rek ci digënté mak yalla samna na ci digënté mo nit ñi tam samna ak deram waaye nag dugg ci lu leunt sootuut dana jall ba dugg ci aram mu misalé ko bu aron barab ni fii bu fi kenn sàmm damay aay kenn ñëw ba ci wet ga mu di fa sàmm ma ngay def lu wóor di soo tuut ak juróom dana dugg ca foofee buur ba aaroon ne bu ko kenn laal te nag buur moom fu mu aaye sori rekk ci gën mu ne buur bu ne dana di am lu mu aar lu mu tere lii bu kenn jege yàlla nag moom buur la boo xam ne la mu aar di bu kenn dugg bu kenn jege mooy yamu seet ba araamal ko ya yàlla seet ba araamal leen daal mooy lam bañ ku ko jege kuy jege lënt nag boo tuut faaw rek nga jàll ci loolee yàlla araamal kon daal ab julit lépp lu muy dugg nag wóor ne lu lew la dagan la lo xamne wóor na ko lu aram la mu sori ko sori lu ko lënt nak te xamu ci lu wóor mu mu laaj ba xam ci lu wóor wóor bi ci mënta xam lu wóor nak mu dal di koy sori sori mu tek ci ne nit nak yaramam wi yàlla def na ci marfa bo xamne su defaro lépp defaru su yaqo lépp yaqo te moy xol fekk na xol bi jubluwu ci jëmmi marfal xol bi ci boppam secret bi yàlla def ci xol mooy defaroo ko yàqu su xol bi defaroo ay jëfam ak ay waxam ak léppam te daal di rafet yiw defaru bu xol bi yàqoo nag wax yaag jëf yaag yépp daal di yàqoo ndegam nag yàllaa xam xol mbirum baatin la lañ mën a xam daal nun doomi aadama yi mooy bu gisee kooka mu rafet ay wax rafet ay jëf mi jàpp ne xolam bu rafet moo tax waxam yi rafet jëfam yi rafet la des moom yàllaa koy xam buñ gisee nag jëmm ji ay waxam ak ay jëfam ñaaw ñu jàpp ne kon xol ba ci boppam moo rafetut moo yàqu moo tax jëfam yi ñaaw ci biir dëgg-dëgg nag yàllaa ko xam yàllaa koy àttee الحديث السابع عن أبي رقية تمي بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين الدين النصيحة موي لا بيره قلنا نوحك نكو لمن أنا نيال كان لني لا بيره قال من لله نيل يالله ولكتابه أك نيال به wali rasulihi ak ñeel yonanteem ba wali aimatil muslimina ak ñeel kilifa julit ña wa ammatihim ak mbooloo seen ñoom julit ña rawahu muslim ku ñu dàkkantale abu ruqayya tam tudd tamim ibnu awsin moo ne yonante bi daa waxoon ne diine daal mooy labiré fekk na diine du laabire dong dong waaye day wane ne laabire dafa réy lool ci diine ba mel ne moom mooy diine na waxe woon rek ne alxajju xarafatu arafa mooy aj te fekk na arafa dong du aj waxinu fadli la yonente bi waxee ne diine mooy laabire dañ ko ne waaw ana ko ñuy laabire mu ne yàlla ak alquraanam ji at yonenteem bi at kilifa yi jiite julit ñi at mat mbooleem julit ñi des boo delloo ci yenn téere yi sara addis boobu daañu leeral lool lool leeral bu yaatu yaatu nañuy laabiree yàlla ak yonante bi at téere bi yàlla bi ak kilifa julit ñi ak mbooloom julit ñi waaye ci gàttal nañ ñi laabire yàlla moom mooy rek li war jaam bi ci gëm ko wéetal ko bañ koo boole dara dara ak topp ko kem kàttanam loolu mooy laabire digganteem ak boroomam laabire alxuraan nag mooy gëm ko jëm koo xam jëm koo jëfe te yàlla rek tax kem kàttanam laabire yonent bi itam mooy gëm ne yàllaa ko yónni lu mu jottali mang ko jële ca yàlla boromam nga jëm nag topp la mu andi kam sa kàttan laa biire kilifa julit ñi mooy xam ne kilifa yalla koy def nga nangul leen ci lépp loo xam ne dañ santaane te mu ak di moytu lépp lu ñu tere te muy lu yàlla tere te di leen dimbali ci lépp li tax ñu mën a matale seen taxawaay ci kaw suuf ci wet gu ne nga leen ciy dimbale kem sa kàttan laa biré mbooloo jullit ñi nag moom moo yaatu lool lool mooy ni ñu ko jullit bu ne nga yéene ko li nga yéene sa bopp fexe daal ba foo toll sa mbokkum jullit nga di ko yéene lu baax diko ko waxal diko ko defal lo defé né soko ci labiré mu xam ko def ko amu yu nga labiré ko wan ko ko lo xamné soko labiré wax ko moytu ko mu moytu ko mucc batay nga wax ko moytu ko ndax mu mucc hadis bobu amna fu ko serigne bi tanké ci ay bayit mu tanké ko arafi muhammad mo tambalé mudda بإيمان ونفيك الشريك لله نصحك تقد بلا فروق حاول نصيحة الكتاب تاليا له ودبهنه عنه تكرم عاليا ملك نصيحتك خير الخلق آمن بما قاد له ذو الخلق مد لمن أم ذوي الإسلام نصيحة عونا بلا ملامه دار نصيحة لغير ذي قصوص فهذه هي نصائح النصوص ونك دانيلي تي مج وانفع بهذه الأبيات كل من أحبك يا خير محبوب الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت دقليف نما أن أقاتل ما خيخك الناس نتني حتى يشهدوا بني سيرين أنك لينبر لا إله أم البن بور إلا الله دري الله وأن محمدا أبنك محمد رسول الله يرنتبي الله ويقيموا تنيتها الصلاة جبلي ويؤتوا تنيجوها الزكاة أسكه فإذا فعلوا ديم دفنا نيو ذلك لولي حسموا كون مسل نيو من نيجمان دماءهم سين درت وأموالهم أكسين ألل إلا بحق الإسلام درج حق الإسلام وحسابهم تسين حسابنا على الله يلا كوارلو تعالى كوانا مم يلا رواه البخاري ومسلم ابن عمر موانا يرنتي بداوة خونة يلا دما ديجل mayo nit ñi ci l'islam ji bu ñu bañee ma xex ak ñoom ba bañu nango xéré né la ilaha illallah muhammad rasulullah di taxawal julli juroom di joxe asaka suma wote nak ba ñu nango xéré né la ilaha illallah muhammad rasulullah di taxawal julli di joxe asaka bu leen waré manam di def dal la nga xamné mom li seen borom sant kon dama leen di ak yalla seen borom suñu ma laal seen deret suñu ma laal seen alal ku ci rek baat yoyu di jëfë ndigal ni ci kaw yalla santuma mooy jéem xam sa biir baa ma cay lu dara dama lay bàyyi yàlla sa borom bu fekkee seere ga nga seere ne yàllaay buur man mii moo ma yónni da ngay woor bu fekkee loolu lépp yàlla xam na ni jëmm ma tax amoo cëg naafiq bu ëllëgee moo lay fay fayu jullit bu dëggal koy ci xam ne nag daa wax baati gëm yi ci kaw rek ak naafiq la muy feeñal ci jëfe ndigal it mel ne julleeg joxe asaka it ragal rek a tax waaye yàlla taxut gëmul yàlla gëmul la muy def kon ab naafiq la waaye bu ëllëgee yàlla moo koy atte te la mu wax mooy ab naafiq moo raw ab yéefar ca fa gën a xóotu xóot ca sawara la koy yóbbu innal munafiqina fi darakil asfali min an naar walan tajida lahum nasiran kon daal ci gàttal yonent bi nee na yàllaa ko digal mu woote gëm ak jëfe santaane yàlla yi ci kaw suuf koy ci xam ne nag seere nga ci sa làmmiñ su gëm di feeñal jëfe santaane yi ci zahir rekk moom amatul ci yow wenn yoon xanaa nga dema dem nag ba jàdd def lu waral ñu tuur sa deret niki rey nit dañ set set wara a fayu ci mom wala mu dem ba njaaloo te fekk mu singiwu moy sarté ya tax ñu war ko ray dajé ca wala bok islam ji nga xamné da ci duggoon mu jekki-jekki leeral na nak génn na ci na nga wut li wax arriddatu dugg ba noppi daal di bëgg génne bokkoon naa ci waaye bokkatuma ci lislaam du forcé kenn ne ko taw nga wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ndax kuñ forcé mën na ko wax te nekkul ci xolam lislaam bu dee digle jihaad jubluwuta forcé kenn ci tey tey nga gëm daa bëgg rek yoon wi nooy nga xam ne ku waaxu bëgg ñëw ci lislaam mën a ñëw te kenn du la ko aaye ndax bu fekkee kéefër dafa nag duñ bàyyi kenn mu ñëw ci lislaam na mu ko bëggee waaye nag buñ xeexee kéefër ba kéefër ñëwewul lislaam nga xam ne ku bëgg a ñëw rek daal di mën a ñëw te kenn du loolu moo andi jihaad ci lislaam bu jihati ak yeufari nak ba l'islam am doole ba ku bëgg ñëw rek ñew buñu forcé kenn ne ko tay tay nga dugg ci l'islam ku ñu wat nanguwut a gëm itam bu nangoo pasolu rek l'islam di joxe lay dëgëral wala rew ñu ko tudde galap ñu dal koy bayyi mu nekk ci am kenn du forcé ne ko tay nga bayyi sa diiné ci l'islam ku ñu woo nag nangu wuta ñëw ci lislaam nangu wuta amalu rek lislaam di joxe galak googu nag kon daldi di jàmmaarloog moom rek moo fa ndax ku mel noonu du bàyyi keneen ku bëgg ñëw ci lislaam mu ñëw ku bëgg a ñëw faaw mu gàttandu la ne la doo dem alxadiisu taasiu an abi hurayrata abdirahman ibni sahrin رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم لما لين تره عنه ولسكو فجتني بوه نين كو مويتو وما أمرتكم لما لين دقل به جموم فأتو دكلين منه جموم ما استطعتم لين من فإنما أهلك نك علقنا الذين نغا min qablikum nekkoon nañ ci seenu njëkk katratu masailihim barik seeni laaj wax ci laafuhum ak seenu jiwoo xala ambiyaihim ci seeni yonante rawahu al-bukhari wa muslimun patay hadith bobu bukhari ak muslim dañ ca tase abu hurayra bu siiw moomu abu hurayra mooy dàkkintalam abdurrahman ibn sahrin moy turam mo ne deg na yonent bi ne luma len tere dal bu len ko jégué luma len digal ñu ko mané lepp def len lepp su ngeen ko mënul lepp def len ci la ngeen ci man tay moytu nak laaj bu bare bari ak di jema jiyok lima len digal te muy lu yàlla sant ma digal leen ko ndax kat ña leen jiitu woon la leen alagoon mooy loolu baril laaj yu ñu laaj seen yonante ak di juyóog digalal seen yonante fekk na booba nee nañ daa xutba woon ne yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj màkka kon nag aj leen néegam bu tedd bii ku ñu wax al aqran ne ko ndax at mu ne lan war aji yonante bi ne pat waxul dara ba ki laaj laaj laaj bobu yetti yoon yonante bi ne ko suma ma ne woon waaw mu daldi war at mu ne ngeen war aji te du ngeen ko man kon nak dee moytu laaj yi deme nonu fu rek yem leen fa lu may nag daa àgg ci lu mat a leeral kon mën ngeen koo laaj laaj yu bare bari daal di xaabaabal rek di lu ëpp def la teewul nag lu ñittewoo xam ci mbirum diine ak ci mbirum àdduna wares na koo laaj ko nga xam ne moo ko xam te maandu moom mi laaj nag bu amul googa xàmmee lu ko kookee wax rek mu jàpp ca loola nee nañu nag ni addis bi waxee lépp lu ñu aaye moom dañ ko war a sori bu wér a wér suñu succaal laal dara dara ndax dane ma maa nahaytukum anhu fajtanibuuhu la ñu digle nag moom la nga ca man rek boo ko defee ba yàlla xam ne la nga man dencoo ca dara rek mu doy sëkk sa jaan wàcc ndax dane wa ma amartukum bihi فأتوا منه ما استطعتم بصح فاتقوا الله ما استطعتم نون الله الحديث الحاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله نكيال تعالى طيب أجتيل لا يقبل دننغ إلا طيبا دري أجتيل wa inna allah naka yàlla amara digal na al mu'minina way gëm ña bi ci la nga xam ne amara digal na bi ci moom al mursalina ña mu yónni fa qaala taala yaa ayyuha rusulu yéen yonante yi kuloo lekk leen min tayibaati ci way teey ya wa amaloo te ngeen jëf saalihan jëf ju baax wa qaala taala yaa ayyuha alladina yéen ñi nga xam ne amanu gëm nañu kuloo lekk leen min tayibaati ma ci way teey la nga xam ne rasaqnaakum wërsagal nanu len ko tuma dakara top mu tudd arrajula waja yurtiilu di yagal ko guddal as safara tukki ba ashhasa mbir mu aji fag aw barate aji fundoñ yamuddu dana talal yaday yar loxoom ya ila sama jëm ci na na ya rabbi yow sama borom ya rabbi yow sama borom di wote ko ñaan rek wa matxamuhoo ta fekk na ak lekkam xaraamun aji aram la wa mashrabuhoo te ak naanam xaraamun aji araam la wa malbasuhoo te ak colam xaraamun aji araam la wa xuddiya te aña leef na ko mbaa dunda leef na ko bil xaraami ci aji araam fa anna yustajaabu naka la dee fi wuyoo naka la dee fi nangoo ñaan laxoo ñeel ko rawaahu muslim am na ci yan yax yi mu ne fa anna yustajaabu li dalik Abu Hurayra moo ne yonent bi dane woon yàlla day ko sell sell ba lu sell sell rek lay nangu daldi ne li yàlla digal yonante yi mooy di jëfandikoo lu lew lu teey moom la digal ñi gëm ñi gëm wax ñu jaar fi yonante yi jaar di jëfandikoo rek lu lew lu dagan lu teey ndax mooy tax ñu mën a jëf jëf ju baax ndax dañuy wax ne ku lekk lu araam faaw mu jëf jëf ju araam ku lekk lu lënt faaw mu jëf lu lënt kuy lekk nag lu teey lu dagan lu lew faaw rek ngay jëf jëf ju baax kon yàlla nee na yaa ayyuha rusulu kulu min at tayibaati wa amalu saalihan na it nag yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum ba mu waxee lii nag mu jàll waxtaane waajoo xam ne day dox rekk di tukki di yëy di sonn lool fu ne mu dañ dañu jëm fa boo ko dee xool mu fundooñ lool fagg lool fu mu toll nag mu ngi tàllal yàlla ay loxoom naa saa boroom saa maa ngi lay ñaan nangam maa ngi lay ñaan nangam te nag ci biir loolu lépp moom la muy lekk lu araam la la muy naan lu araam la la muy sol lu araam la la muy jëfandikoo daal moom